wajxal jihaad ya ka yow mi badri bokki jullit yi maa ngi leen di nuyu tey jottali samay siyaar ak samay ndokkeel ci mboolem njabootuk sëriñ Tuubaa gi ak mbooleem jullit yi ak waa réew mi ndax bis bi ki tax ñu taxawal ko muy as seex Abdul Ahad Mbakke mu nekkoon ñetteelu xalifa xaadimu rasuul jëfam ci diine ji ak bokk gi ak réew mi kenn nattablewu ko te kenn réerewu ko moo tax waree su koo fàtte te bis yu demee nii taxawal ko bokk na ci liy mën a fàttali nit ñi taxawaayu kilifa yu baax yooyu ndax lu jamono soppiku soppiku ndaw yi mën a am ay royukaay kon njabootu sëriñ abdul ahad gi taxawal liggéey bii te sëriñ Xamsatu Mbàkke jiite liggéey bi na leen wóor ne képp ku bëgg lu baax bég na ci rawatina njabootuk sëriñ Tuubaa gi ndax sëriñ Abdul Ahad moo doonoon way juru ñépp bi mu toogee li mu jëkk a def mooy la mu roye woon ci sëriñ Muhammadul Moustapha mi jëkk a nekk xalifa xaadimu rasool te mooy tànn ay kilifa ci yoon wi ñoo xam ne sëriñ Touba cëraloon na seeni wayjur muy diisoog ñoom ci yoon wi ak bokk gi dellu jël ci as seex Muhammadul Fadil mi nekkoon ñaareelu xalifa naka lañuy ñuy yilife mbooloo te mooy yërëm leen te di leen dimbali mu boole yooyu yépp nag door caa dolli melow boppam ak jikko jëmu jële ca sëriñ Touba. fas yéene mboolem ñi mu bokkal sëriñ bi góor ñi ak jigéen ñi mu teggi leen seen coonoy àdduna tàmbalee ko ci lépp lu ñu ko yët ak la muy liggéey mu séddale ko ñi mu bokkal sëriñ Touba boole ko ci sa doom ju góor mata samp kër la ca war moo koy def bu fekkee doom ju jigéen la moo koy wutal boroom kër waajal ko ba noppi ne ko bu sa bët naree xonq naa la gis njabootuk sëriñ Touba gépp mu yëkkati seeni doom ba ñépp seen leen ñu boole ca dund am noflaay bu àndul ak coono ay doomi boppam mu yar leen ci ñeme coono ba noppi joxoñ leen ak taalibe mësula yëkkati jenn doomam di suufeel njabootu ñi mu bokkal sëriñ bi mësula nangu dara dugg këram te joxuñu njabootuk sëriñ tubaa gi lañu yellool ba noppi ndax li mu gëmoon mooy lu ñu fi indi sëriñ tubaa tax te alali sëriñ tubaa ak njabootam waruñu ko umpule lii moo tax sëriñ Abdul Ahad kilifteefam yaatu woon lool mu nekkoon itam jëmm joo xam ne lépp lu mu daa jëf yàlla rek ay tax te lépp lu daa sagal diine ji ak di siggal yoonu morit mësula wàcc ku la ko ca war ndax yaakaar ja woy juróom wa Xaadimu amoon ca moom la daa sàmmoonteel te ñépp yëg nañu ne la mu daa digle ak a tere lenn génn ci taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar te mësula génne loxoom ci jépp jëf joo xam ne ci yoonu yàlla la jëm bu ca joxe alal waree dana ko def bu ca yëkkati kàddu waree mu def ko te lépp payuk suñu borom la cay séentu ndax jullit bi gëm yàlla dafa am lu ko borom bi laabire te mooy yàlla dafa wax ci alquran ne yaa ayuha allazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alimin tuminuuna billahi wa rasulihi wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi am amwaalikum wa anfusikum saalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun sëriñ abdul ahad ku mënoon a jariñ ci alxuraan la te la mu daa digle moom la daa jëfe te lenn mësu cee génn alxuraan ak sunna loolu mayan na ko fu mu yëkkatee kàddu képp kuy jullit man caa jariñu kon jëmma ngoogu joo xam ne aw turam du suulu ndax jëfam te jamono du deñ di ko tiitaroo yàlla defaloon na ko mu déggoog mboolem ñi mu bokkal sëriñ Touba góor ak jigéen seex yi nekk ci yoon wi mu yeesal ñépp sig sagal leen dolli seeni doole ña xawoon a jekku seen bopp mu balee nag la ñu yor te la mu am mu nangu ko bokk ak ñoom meloom ma taxoon na ku mas a jàgg mbaa nga bew mu sóob la ci taalibe te ku teel a wane la ni yoon wi war a doxale ci lépp rawatina ñi ñu séqal wàllu àdduna ba gouvernement bu fi mas nekk la ko fa daa ump daawul bari te na mu daa jëflanteeg ñoom taxoon na yoonu murit lay seen àq ci réew mi kenn daawu leen ko xañ te jëflanteem lépp da daa ànd akuk wegeel ndax kenn ku nekk dafay xam la war sa digg ak moom te la cay wàllam dara du ca des ginnaaw kon sëriñ Abdul Ahad ay qualitéem mënee la wax lépp waaye doomi sëriñ tuubaay yépp ku ci ne yàlla dafa def ci yow ak mat ba koo gis ci ñoom yéem leen te bu ñu jëfee nga naw leen ñoom ñépp ay bokk lañu waaye bokkoo woon nañu ndax yéenante woon nañu jàmm te daawuñu jëwante kenn daawu ci xeet sa moroom li ko waral kenn ku ci ne Sëriñ Tuubaa ngay xool ci sa moroom te doy na ci firnde jëmm ji njaboot gi tudde bis bii muy ak Seex Abdul Xaadir Mbàkke ku taqoo woon ak Seex Abdul Ahad la te déggoo woon lool ak mboolem ñi mu bokkal Sëriñ Tuubaa Sëriñ Abdul Xaadir nekkoon koo xam ne ku bëgg a xam dundiinu xaadimu rasool ci diina islaam boo jàkkaarloog moom xamee ca dul sikki sàkka te lépp loo xam ne islaam jàngale na ko ci nu ab jullit war a mel ginnaaw bu mu ko jàngee ba xam ko mësula jëf dara lu waroo ak na ko lislaam digle sëriñ abdul xaadir mësula déggoo képp kuy woyofal mbirum diine walla ngay roy lu dëppoowul ak sunna kon ku déggoon waxi borom bi la subhanahu wa taala wa ma aataakum rasulu fa xusuuhu wa ma naxaakum xanhu fantahu sëriñ abdul xaadir jëfam yépp boo ci xool ci alquran nga daal di gis aaya ba mu sukkandiku mësula jëf dara lu muy làmbatu te ku ko xam-xam ne daawul jëf lu yàlla taxul jëfam yépp payug yàlla moo ko ca gënal ngërëmul mbindeef jëmm la ju daa dimbali jullit yi ci seeni aajo ak seen wàllu diine kon ma ne saa wax ne sëriñ abdul xaadir léppam aw yiw la ku bari woon yërmande la ku siggaloon jullit ñépp la waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku gëm yàlla dëgg léppam aw yiw lay doon te loolu ku gëmul yalla mënu la nekk ci yow te mooy jullit bu gëm bu ko mu sant borom bi mu nekk aw yiw ci bu ko lor dabee mu muñ muñ ga nekk aw yiw ci la abdul Khadir mbàkke nekon, donon na ku bëgg lu baax te di ko jëfe nekk waaye dafa xamoon ne jëf lu baax yebul ak pay ak ba ndax man jaa bil xasanati fa lahu xasru amsaaliha wa man jaa bis sayiati fala yujsa illa mislaha melow sëriñ abdul xaadir nag ak mbooleem doom yi sëriñ tuubaa yi ku ciy wax tuuti nga ciy xam te du doon looy mën a wax lépp waaye li am solo waxtu wu ne nañuy jàngat seeni jikko ak lañu ñu daa jëfe fas leen yéene roy ndax ñoom kenn ci sànkul ak dundam te wàccew nañu ak sëriñ ndax ku ci ne ormaal nga xaadimu rasool ba mësuloo jëf lu waroo akub bëggam loolu nak moo leen mayoon kenn ku ci ne ci ñoom nga sa am sëriñ Touba kon ku bëgg royukaay ay ini ngi nii te ku bëgg a niroog ñoom bul wàcc seenu yoon te nun ñépp seen seen euh, roy seeni jëf moo nu war te bokkul ci ak farlu fu ñu tuddee sa way jur képp ku bëgg lu baax bëggoon mu jur ko te yow amul loo ko niru ci ay jëfam loolu moytu te bu ñu mu gaar ñu dañoo war di nafar li fi mag ñi dañu mag ñi seeni jëf du suulu te ku ñu fi ormaal jikkooy mag ña lañ lay xoole kon kenn waru fee bàyyi la mag ña daa dund fent saw yoonu bopp te lu ci bari du diine àdduna dong la kon li nu war nun ñi ànd ak sëriñ Touba ñuy topp am njàngaleem ndax fi mu nekkoon leeral na ko leeral na ko naññi nee na diine diine ya imaanun wa islaamu maa afdali ihsaanin liman lii xamaha mu waxaat ne saharali kaw niya abdallahi bihi man li rasulillahi sëriñ bi nag la mu bëggoon nekkoon ca la ay kon ku taq ca ñoom mbaa nga topp leen dara waru la lu may fu ñu geesu la te xam li may bi ku man cee jariñu ndax nee barakati barakatun laa tan wali siwaa saati asaayamul xatian te nun muridi yi ku ciy sàkku njub war na ndax li sëriñ bi bind wala nga roy ak njabootam ak njub dana la itteel te képp ku jub da nga noppul waaye ku dëng ànd akub sànja te dunduk àdduna gi lu mat a bàyyi xel la ndax saa boo xëyee say mébét dolliku te say jëf du mat mukk loolu moo waral kuy génn àdduna faaw mu doon mbetteel ci yow ndax la nga yaakaaroon a dund te mu doon sa kumpa kon àdduna dara tanewu ci lu dul bis bu ne ngay fexe lu la mën a yokkal aw yiw ëllëg tey xalaat ne ruuxu doomu aadama waxtu wu ko borom bi soxlaa ca la koy jël te dee ni ko alxuraan waxe mënee su koo daw ndax ku ko doon daw sax faf taseeg moom qul innal mawta allazi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum summa turadduuna ila aalimil xaybi wa sahaada fa yunabbiukum bi maa kuntum taamaloon te ku ci ànd ak sam xel ku ne war ngaa xam ne la yóbbu mag ña duñu fi bàyyi kon la mag ña nekke woon mat nay xeeñtu tey fexe ba seeni jéego bañ noo réer ndax ku ndax ku jëf lu dul raaf bàyyi fi ña nga ko bàyyeel buñ ko yokkul it war koo sàmm sàmm gi nag kenn ku ci ne ci sa jikkoy bopp nga koy tàmbulee te am murit fu ñu ko gis melo sëriñ Tuubaa bëgg war na caa am lu mu làmbool te sëriñ bi la doonoon ak bëggam wax na ko muraadiye kaw nii abda rabbi xadimahu alayhi salaamullaahi mallaahu ahyaani nit nag kenn mënul ne moo ma doy te moom laay roy ba noppi bëgg a waroog moom aw doxin loolu nax sa bopp la kon yàlla nañu yàlla jubal te jéggal ñu te boole ñu ca ñi yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon ne laa tasaalu taa'ifatun min ummati saahirina halal